jàppee Siteu tey gis nañu ni cong bi yàgg na encaissé nga ay coups. bu ah yow père lamb long nga sama fi yëpp a da nga ko bàyyi bis bi. léegi bi ngeen bootantee foofu noo def ba yoor ko fi kaw. non liggéey na kaar macha allah mais euh, Mor Faram xam nga ku mu nekk euh, sa entraîneur ngay luum ak laay géey doo tiit. parce que dafa am lu wax Siteu moo ko tombal ci bërëm bu ma xaree kon ca kaw laa